métteel biñ nar a am métteel biñ nar a am mooy ñu dem élection ñu naan nit ñi fu ñu jaar képp ku mun a ñëw nag nit ñaa ngi mobiliser jeune primo votant yi foo dem dafa fees del del del del del ak primo votant te li wér te wóor yi ak quatre-vingt-dix pour cent nekku ñoog waa APR nekku ñoog Benno Bokk Yaakaar man nag fi ma tollu moom wax naa ñi ma mun a waxal yi ma mën a gis gis naa leen il faut que ñu mobiliser parce que nekk ci réseaux sociaux rek di bind walla di ngañaate wala di def yoo xam ne yi ay dafa xaw a reetaan loog yooyu je crois que yooyu du tax ñu gagné élection yi de élection yi daal pour ñu gagné ko il faut ñu jugaat primo votant yi ñu dem seeti leen primo votant yi ñu organiser wu mobiliser ñu dem inscrire leen mais buñ toogee fii naan dinañ gagné dinañ gagné mais bi ça va être très très très très difficile très douloureux et très surprenant il faut que nous ñi juk ci yenn yenn euh, comportement yi ñu lu fu hein, parce que mois rek la été à Saint-Louis la fofu nga joge daru musti la fa xew feneen ak feneen la fa xew ñepp primo votant primo votant yëpp sonku lañ andal wala ñi and ak sonku andu ñok APR andu ñok benn mbokk Yaakaar man nak suma wax du neex man la Mbagnick ñay ngeen li ñu mu ndal ñu koy def mais li ñu munul moom ah bu élection bi bu ñu waxu ñu ko woon de wala ñu ko woon de nañ leen wàcc sur le terrain ñu sur le terrain on n'est pas sur le terrain salut man la ñay mbetteel biñ nar a am mbetteel biñ nar a am mooy ñu dem élection ñu naan nit ñi fu ñu jaar képp ku mun a ñëw nag nit ñaa ngi mobiliser jeune primo votant yi foo dem dafa fees del del del del del ak primo votant te li wér te wóor yi ak quatre-vingt-dix pour cent nekku ñoog waa APR nekku ñoog Benno Bokk Yaakaar man nag fi ma toll moom wax naa ñi ma mun a waxal yi ma mën a gis gis naa leen il faut que ñu mobiliser parce que nekk ci réseaux sociaux rek di bind walla di ngañaate wala di def yoo xam ne yi ay dafa xaw a reetaan loog yooyu je crois que yooyu du tax ñu gagné élection yi de élection yi daal pour ñu gagné ko il faut ñu jugaat primo votant yi ñu dem seeti leen primo votant yi ñu organiser wu mobiliser ñu dem inscrire leen mais buñ toogee fii naan dinañ gagné dinañ gagné mbettel bi moom ça va être très très très très difficile et très douloureux et très surprenant il faut que nit ñi jóg bàyyi ci yenn yenn euh, comportement yi ñu am ah dugg ci nit ñi wax ak nit ñi si lu fu ñu génne xaalis ah nit ñi dem jëli prime mouvement yi parce que un mois rek la boo demee tey à Saint-Louis la fa fofu nga joge daru musti la fa xew feneen ak feneen la fa xew ñepp primo votant primo votant yëpp Sonko lañ andal wala ñi and ak Sonko andu ñok APR andu ñok benn mbokk Yaakaar man nak suma wax du neex man la mbañik ñay ngeen baal ma li ñu mun ñu koy def mais li ñu ah bu élection bi bu ñu waxu ñu ko woon de wala ñu ko woon de nañ leen wàcc sur le terrain wàcc ñu sur le terrain on n'est pas sur le terrain salut man la mbañik ñay métteel biñ nar a am métteel biñ nar a am mooy ñu dem élection ñu naan nit ñi fu ñu jaar képp ku mën a ñëw nag nit ñaa ngi mobiliser jeune primo votant yi foo dem dafa fees del del del del del del ak primo votant te li wér te wóor yi ak quatre vingt pour cent nekku ñoog waa APR nekku ñoog Benno Bokk Yaakaar man nag fi ma toll moom wax naa ñi ma mun a waxal ñi ma mun a gis gis naa leen il faut que ñu mobiliser parce que nekk ci réseaux sociaux rek di bind walla di ngañaate walla di def yoo xam ne ay dafa xaw a reetaan loog yooyu je crois que yooyu du tax ñu gagné élection yi de élection yi daal pour ñu gagné ko il faut ñu jugaat primo votant yi ñu def seeti leen primo votant yi ñu organiser wu ñu dem inscrire leen mais buñ toogee fii naan dinañ gagné dinañ gagné mbetteel bi moom ça va être très très très très difficile et très douloureux et très surprenant il faut que nit ñi jóg bàyyi ci yenn yenn euh, comportement yi ñu am ah dugg ci nit ñi wax ak nit ñi si lu fu ñu génne xaalis ah nit ñi dem jëli prime mouvement parce que un mois rek la boo demee tey à Saint-Louis la fa fofu nga joge daru musti la fa xew feneen ak feneen la fa xew ñepp primo votant primo votant yëpp Sonko lañ andal wala ñi and ak Sonko andu ñok APR andu ñok benn mbokk Yaakaar man nak suma wax du neex man la mbañik ñay ngeen li ñu mu ndal ñu koy def mais li ñu munul moom ah bu élection bi bu ñu waxu ñu ko woon de wala ñu ko woon de nañ leen wacc sur le terrain wacc ñu sur le terrain on est pas sur le terrain salut man la mbañik ñay